ci lañ ko ne la anta yusufa ndax yow yaay yusuf kon mun leen waaw ni yusuf man mi may yusuf bañ ko waxee rek ñoom ñëpp ñu ne allahu akbar daal di sujjóot gént ga mi ngi doog ñëw mbokk yi biñ sujjootee rek seen yaay ak seen baay ak fukki doom yi ak benn ñëpp sujjootal yusuf muy inni raaytu ahada hasra kawkaban wa samsa wal xamar raaytuhum li saajidin ñoom ñëpp ñu ànd sujjoot mbokk yi gént gi doo ko réalisé wu gis ngeen li jaar ci diggante bi yëpp moo ni mbokk yi Yuusuf mënoon naa gént ñu sànni ko ci teen bi muy jafe-jafe yi mënoon naa gént ñu tëj ko ci kaso bi mënoon naa gént ñu jaay ko mu nekk buur mu nekk jaam mënoon naa gént bi ko soxna si bi di sàkku yooyu yëpp jaar na fi waaye suñu boroom léeg-léeg mu wan nit dara fekk dafa am yu bari yu ne ci diggante bi kon gént mën naa ñëw ci sensé comme ni ko sunu maam Ibrahima def mën naa gént itam mu ñëwaat lu yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it géntoon na fatu màkk wax ko saxaaba yi ne leen gént naa ñu dugg màkka biñ ñëwee ba jub màkka affaire bi dëgër ñu taxaw yonent bi ne leen nañ leen wàññeeku saxaaba yi ne ah yonent daal lu gént dëgg la te yonent bi moo waxoon nañ génn nañ dinañ dugg màkk yonent bi xam na ni déwén lay doon déwén lay doon du ren waaye ñoom ñu bëgg sigiñu bi mu ci waxtaanee ak soxna Aïsa radiyallahu anhu ci la ko wax ne ko da ngay watu rek ndax saaba yow rek lañ bëgg boo watoo rek daal di tabaski ñoom ñu nangu bi mu ko defee gis nga ca déwén sa la fatu Màkka doog a am nga xam ne yonent bi kon gént na ren jàpp ne ren la ndax te déwén la gént gi réalisé wu yonentu yàlla Yuusuf ëpp na fukki at wala ñaar fukki gi doog a réalisé wu yonentu yàlla Ibrahima dafa gént rek ci saa si gént gi ñëw pour wax leen ni mbokk yi gént mën nga gént léegi mu ñëw xëy gis ko am na ñuy gént noonu am na ñoo xam ne liñ gént day safaanoo safaan ba la ñuy gis am na ñoo xam ne tam liñ gént dinañ ko gis mais day toog diir bu yàgg doo a ñëw am na yoo xam sax day laaj nag sarax bu ñu war a génne parce que liñ gént jafe-jafe la buñ leen annoncé pour bañ mu agsi ci ñoom buñ defee sarax sàngam jafe-jafe boobu du agsi bu ko defee nag bu ñu ko xamul ndax wax naa leen ni gént mbokk yi message la rek buy ñëw ci nit ki xam nga nag téléphone yi ñu yor rek léeg-léeg message ñëw bu am solo message yi mbégte yooyu léeg-léeg nit ne la jëlal numéro yi wala sa identité lan moo ci nekk mbokk yi bu fekkee ku ko xam la nag mën na bañ a laaj mën na jékki-jékki rek envoyé la benn message moo xam Western Union la wala joni joni wala wari wala yooyu di xew wala ria wala yooyu bu ko defee nag bu fekkee yow xamoo message bi li ci nekk demoo laaj ko mën na dem ba dat ba jeex ndax am na fu muy yem bu jeexee nag musiba am kon gént daal li ma bëgg a wax mooy dañ ko war a laaj dañoo war a laaj damay gént sàngam ñu ne la nangam ak nangam la bu defee nag gént wax naa leen yonent yàlla Yuusuf da ko doon firi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon firi kon du fu caaxaan loo xam ni mm, doon la xaraarkat wala mën a ñaan taxut a a firi gént doon fiqi jàng xam ba am xam diine bu bari taxut a mën a firi gént gént daal mbokk yi ni ñu ko waxee wàlli yu moo nit yonent moo koy man wala wàlli yu wala nitu yàlla piir koo xam ne yàlla da koo may ko amee mayu yàlla wala boog koo xam ne daa jàng téere yi bu baax a baax te xereñ te yow mën a seetantal aada yi doomu aadama yeeg seen i dugg ak seen i génn ak seeni tolluwaay ndax mbokk yi gént nit dina gént nangam ci jamono ji keneen gént même gént gi te duñ bokk lañuy firig bu njalloo tuuti ci soir yonentu déedéet suñu imam Malik borom ngir mi nga xam ne moom lañu nekk jamono amoon na benn firikatu gént bu amoon xam-xamu gént imam Malik nag wax nañ ni weddiwu ko woon waaye dëggalu ko woon da caa màndu woon rek kooku mus naa toog ci benn jataay ñaari nit ñëw laaj ko kenn ki ne ko damaa gént di nodd mu ne ko yow waajal da ngay dem màkk biñ demee toog tuuti keneen ñëw ne ko damaa gént di nodd mu ne ko yow dangay sàcc danañ la jàpp ñu ne ko ah si yow léegi nga firee fii nodd kii ne ko da ngay dem màkk kii nga ne ko dañ la jàpp mun leen ah ci alquran rek la sukkandiku wa asdin fi naasi bil xaj ji lu ci topp wa asdin fi naasi lu ci topp ñu ne ko bil xaj ji mu ne waaw kay kon foofu loolu moo ci moo ci moo ci njëkk waaw bu ko defee suma asana mo asanu ayatuhal xiiru lu ci topp ñu ko innakum la saari xon mu ni ba tey ñaar yooyu it foofu la yow ci kon bee sàcc rek laa ko mën a firee te ñooña sikkuut ne la leen waxoon noonu rek la demee firikatu gént boobu ba tey imaam Maalik yebal na bëkk néegam fekk dafa am ak gént waaye da ko ni boo demee nga laaj ko waaye bu ma ci feeñ nee ko rek yow yaa ko gént bi mu ñëwee ne ko damaa gént malaaka feeñu ma tàllal ma juróomi baaraamam ci mbokk yi ci li ma doon wax léegi bi mu ko waxee rek firikatu gént bi ne ko lii de géntoo ko gént gi moo la mag gént gi géntu kilifa la demal woy borom gént gi bi mu ñëwee wax ko imam Malik ne ko ah nee na di géntuma ko gént gi ma mag imam Malik ni ko wax na dëgg xaaral ma dem imam Malik ñëwee mu ne ko dafa am juróomi mbir yoo xam ne danga koy laaj suñu boroom di ko lisxaar di ko moom lala la malaaka di wax ni loolu nga yem yàlla rek moo ko yeyoo xam mënoo ko xam muy aaya alquran boobu ñuy wax inna laa hindoohil mustahat wa yunasirul xaysa wa yaxlamu maa fil arham maza bi ay ardin tamut aw kama bu fekkee noonu mbokk yi mu koy wax ni kañ la di taxaw nu yàlla di dekkale bakke nag nu koy reyee di laaj yoo xam ni yàlla rek moo ko jagoo mu wax kon nag loolu loolu ngay laaj la suñ borom malaaka di wan ne loolu yàlla rek moo ko xam imaam Maalik ne ko ak saa noonu rek la demee te kooku mbokk yi moo firi woon gént gi ci benn jataay kon loolu rek moo tax gént dañ ko war a laaj bul dégg rek nit ne nga déglu firi gént nit ne damaa gént nangam ñu ne ko nangam la nga sukkandiku ca man naa am bokku leen xaal yéen ñaar mën naa am bokku leen tabiha mën naa am bokku leen rawxaan xëy na loolu taxu ñoo jóg tey waaye dinañ ci ñëw mën naa am bokk leen ci arba xanaa siri ni mu demee comme ci groupe sanguin yi bu dee mën naa gën a jege xam nga hôpital da bokk ak nit benn famille ngeen dem ñu seet leen kii nekk groupe A kii nekk A plus kii nekk B ki nekk nangam bu ko defee groupe sanguin duñ mën a mayante deret léeg-léeg te ñoo bokk kon loolu mooy wane ni tabixa yi doomu aadama yi suñ borom ni mu leen bindee dafay am wute bu ko defee nag naar yu turaab yu xawaa yu ak maa yu muy ñeenti yooyu nga xam ne moo tënk àdduna bi muy sawara ak ngelaw ak suuf ak ndox sawara moo jiitu suuf topp ci ngelaw topp ci ndox topp ci muy nataxamu bu ko defee yooyu noonu kër goo dem wala àdduna boo dem mënu faa ñàkk doomu aadama ju ne tam jëmmam yooyu da cee dajaloo bu ko defee nag loolu moo tax nag nit ñi di wuute ci ni ñuy gisee di wuute ci ni ñuy xalaate di wuute sax ci seen tempérament ni ñu gaaw a mereek ni ñuy kontaaneek ni ñu yëgee yooyu nag nit ki bu ko xamut pour mu mën a mën a localiser nit ki ba xam ne lii mu gis lii la wala ay tolluwaayam lii la walla pexeem lii la dana jafe bu ko defee loolu mooy fulk bi ni muy doxe nga xam ni alquran daf ñu koy junj di wax ni wal xamaru xaddarnaahu manazila xataa hadaka alxurjoonil si la samsiyan baxilaha an tudarika alxamar wala laylu saabiqu nahaar wa kullun fi falakin yasbaxoon est-ce que di ngeen alxuraan mu ni jant bi de du dab weer wi mukk mbokk yi lu tax du ko dab ndax guddi gi itam du dab bëccëg gi loolu suñ borom daf koo teg tegin woo xam ne nii du moy nga xam ni ci misaal jant bi bu fekkee ni day dab fukki kilomètre ak ñett moom lay daw loolu weer wi ci benn fan la koy daw muy fukki daraja ak ñett la jant bi di daw ci ci mansila bu nekk mansila bi weer yi bu fanaanee rek génn day dem ci beneen léegi ñaar fukki mansila yi ak juróom-ñett jant bi daf koy def ci at cent 365 jours bu baree bari wala 364 jours bu néewee ba néew dina am nag ay ay ay ay yu ciy tege ay minute ak ay nangam nangam bu ngeen delloo suñ calendrier bi loolu moo tax ñeenti at yu mois de février ñu ciy dolli muy am 29 xaaj yooyu lañ ciy dolli bu ko defee nag noonu ko weer wi gën a gaawee moo tax weer wi day daw di wër ba dabaat jant bi wëraat ba dabaat ko bu ko defee nag wër googu muy wër fu mu dugg nag burju yi nga xam ne ci lay dugg muy xumul sawru jaw saaw sarataan asat zumbula misaan xaqarab xaw su jat yu dalu ba xóot muy fukki weer yi ak ñaar bu ci jant bi dafay dugg def fa weer daal di génn dugg ci beneen léegi nag bu jant bi duggee foofa def fa weer léegi nag weer yu moom dafay def rek ñaari guddi ak xaaj ci mansila bi fi jant bi di def weer weer wi moom ñaari guddi ak xaaj la fay def moom la borom xam-xam ba di wax ni maqaamu la laylataani wa sulus ñaari guddi rek la fay def ak xaaj bu ko defee nag loolu ni muy doxee nag fu mu toll nag am na lu muy jeextale ci jamono ji ki nga xam ne dafa nekk naariyu bu jant bi nekkee ci kër goo xam ni kërug noonu la wala maa yu këru maa yu la wala biddiwu noonam moo fa dugg day métti ci moom jafe na day tar ci moom parce que maa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran kenn ku ne koy koo mën a doon nag ak loo bari barile jafe-jafe yeeg yomb yomb yomb di ko yëg ndax adduna noonu la bindoo loolu nag burju yi ni muy doxee ak di dugg jamono ji jant bi di dugg ci burju yi di génn weer yi di dugg mu am biddiw yu mu fay ànd fekk di ànd ak ñoom bu fekkee ni dafa dugg ci sa këru tedd nga ànd faak biddiw bu leer sa tedd nga gi day yokk bu dee dafa dugg ci sa dugg ci sa këru wërsëg waaye biddiw ba fa nekk dafa naxis sa wërsëg day am jafe-jafe duggee sa këru bor noonu bu naxisee bor yi day gën a bari kay am jafe-jafe ci ay bor sa bor ñi am ay milliards sax dañ koy am ñi am problème bor dangay gis société yu mag di dem fayit ndax fa muy dugg mooy tax bu ko defee nag mbokk yi fu mu dugg rek burju bu mu dugg am na sarax bu bu ca war ndax biddiw ba muy àndal ndax biddiw bu naxis la walla walla biddiw bu leer la bu ko defee nag yooyu noonu mooy jeexital ci doomu aadama yi nit ñi nag ci noonu tam dafa am këru gént boo xam ne guddi googu bu ci àggee parce que biddiw yi ni muy doxee ci weer yi ak ci burju yi noonu lay doxee ci 24 quatre yi bu ko defee saaxaatul falak yi nga xam ni léegi tey la altine bu ko defee xamar moo ko moom xamaru 24 heures yi dana ci tourné 4 fois ci journée bi 4 fois dina ko ci fekk yoo xam ne bu ñëwee maanaa ci misaal bu njëkk bi xam naa du sori 7 ci suba 6 heures 59 wala 40 nangam 45 jàpp 50 ci yooyu xam naa du ko sori wala 7 heures nangam daal xam naa teewlu ma waxtu wi tey wan waxtu la la la la fekk waaye foofu lay fekk bu demaatee day demaat ca jamono yi quatorze heures ca lay feqaat bu boobaa dana demaat ca ginnaaw jamonoy seize heures bu ñëw après bu ñëwaat ci guddi gi bu defee nag yooyu noonu ni muy wëndeeloo kenn ku ci ne dafa am lu mu doon ci yow nga xam sa sa tedd nga la wala sa coono la wala sa naqar la wala sa bidiw noonu la bu defee noonu yi ci lañ lay songe ñi lay fexeel ci lañ lay fexeel